laajoo waa Sénégal salaamaaleykum waa Benno Bokk Yaakaar man la aw Awa Dioum AFP laa bokk di nuyoo di dalal sama ministre di dalal sama maire yéen a ngi dégg di dalal sama maire bés bi nag tey maa ko taamu maak samay femme ñu nekk ay jigéen yoo xam ne dañu nekk ci biir Sicap Liberté 5 ma xoolaat mbir mi xoolaat mbir mi am fu ma nekkoon it ma xoolaat mbir mi xool ba xam ne fi ma nekk kat ah, du ma ne baaxul waaye fi ma jëm gën tey nag waaye da tàccu li <laughs> ah, ah, ah xam nga lu tax muy am tàccu li ma def dafa rëy damay sumb mbubu fas sol mbubu te xam naa ne euh, madame la maire mbub mii ma nar a sol nga fas yéene ma koo solal yaakaar naa ne su ma rombee kenn du ma ree kii di sama wet nekk ci Ndeye Maguette nga xamante ne bii man jombale naa sama bopp bokk ci liste Ndeye Maguette nekk ci liste boo xam ne du ma ko jàppale loolu dama koy jombale sama bopp man nekk ma fi woon nañu def ma ci liste ba ma ñëwee xool xam ne liste bi doyu dama dem seeti ki ma doy bés bi maa ko sàkku parce que xool naa ne Sicap Liberté 5 ñi fi nekk ay jigéen lañu jeunes yi fi nekk ñun ñoo leen jur lu ñu doon doon doon ay femmes yu ndaw ñun ñoo jur jeunes yi fi nekk te dañuy xam nañ ne ñu dara te xamal nañu boo yóbbu ba ville de Dakar ana waa waa waa kii yi waa waa nu ñu koy waxteeti xale yi nekk IAM dama am ay jeunes yu nekk Sicap di jàngi IAM ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ma waxtaan ñoom ñu ne ma aw jum comme ville de Dakar nee nga Diouf Sarr a ko soxla ma ne ko naa man ma dañuy jàppale Zahra jàppale Diouf Sarr ñu dee nekkee yàlla suñu yaay yi fay bi fay te xam ne métti na ku nekk xam na ne école ba ñu nekk fay bi cher la waaye bëgg suñu doom baax suba te xam nañ ne ñun boo leen jëlee mairie bi jël ville de Dakar bourse yi ñu soxla di ngeen ko teg ñu loxo xam nañ ne lii ñu nekkee fii ci diggu dëkk bii xam ne Liberté 5 gis nga bi ngay ñëw ni mu méttee lëndëm na wax dëgg yàlla bu dul woon torche yi ngeen nii tey du leer ma lay xamal ne bés bii di la ko waxal di la ko waxal Ndeye Maguette Lo ñëw naa saf naa te dootuma dañ. kontaan nga parce que fi ma ñëw rek fii laa war a ñëw sooy ànd ak mbër da ngay ànd ak mbër muy daan muy bëre daan ngay ree waaye boo ànd ak mbër moo xam ne fu ñu ko jekkoo teg ko ci suuf loo fay def bës ni ki tey maa ngi ci ginnaaw madame la maire waa Sicap kii moo ko yor keneen leen sànni seen carte Fatou Sow jeeg ji ko leen sànni seen carte yàq ngeen ko kii ko yor madame le maire dootuma la wax sax yaan duma la wax ministre bi sax neex na waaye maire bi nga nar a nekk di jigéen ñun ñuy jigéen xam li ci yaay xam li ci nekk dénk nañ la suñu kàddu dénk nañ la suñu loxo dénk nañ la suñu lépp jërëjëfati waaw liste bi ma nekkoon list bi mën naa ne sax est-ce que jàpp naa ci lu bëri Cheikh Ndiaye ko yor te ku nekk xam na ne Cheikh Ndiaye fii la nekk ci dëkk bi nekk si kàb bi wax dëgg yàlla nag am lu mu bëgg Zahra mii bëgg ko ma xool sama bopp waat sama bopp te ragalu ma dara xool li ma xam te ku ne xam na si kàb gii nag gaynde laa fi ku ma xam-xam ne si kàb Liberté 5 bi ñi ànd ak Zahra ñi ma jiitu ak ñi fas yéene toppaat ci man xam nañ ne dara naa ci diggu dëkk bi fii liggéeykat la kër gii ma ko dugal tey ñu defal ko fi ay ñaan jigéen ju sell nekk ci biir kër gii fii laa ko njëkk dugal dugal mës naa ànd moom ànd ak ndéem si yàlla dugg ak ci biir kër gi Alioune Ndiaye dugal fii Zahra ci biir kër gi di ànd ak moom xay na leen nag léeg-léeg nga dem ci loo xam ne sa tànk dina faqasalu te doo ko gis gis naa ne suñu góom gi ki koy faj kii la moo ñu doy xam nañu lii ñu bëgg ci suñu bi soxla ko xam ne li fi nekk ci budget dañ ko a génne defar sikaab mu bindoo a ni mu mel te ko xool leen suñu gox ni mu mel léegi te nag lu ko leeral bëgg nañu sécurité te loolu xam nañ lu ñu bëgg kii moo ñu ko mën a jox